du nit dafa jàng impôt rek wala mu nekk ci banque mu mën a yor li ñuy wax finance publique finance publique du ay affaire caaxaan te dañu gis ne Abdoulaye Daouda Diallo nekk ñi ni ko xamante ne ni boo xoolee fi mu jaar yépp ci réew mi amul fenn foo xamante ni ne def na fa lu baax te du tey ñoom dañuy joxaatle finance ak juuti du benn réew mi il faut mu am ay nit ñoo xamante ni dañuy am xarañce di mën a seet na lañuy ñuy capter ay xaalis au niveau de l'étranger di ko indi ci réew mi pour que réew mi mën a dox mais ab laay Daouda Diallo ay détails moo ko intéressé moom ale mu toppatoo wàllu macro macroéconomie moom ay affaire économie lay toppatoo ay détails te c'est extrêmement dangereux moom day fayantoo. liggéey liggéeyul ngir réew mi xoolal bi mu jaaree ministère de l' intérieur affaire cinquante milliards cinquante milliards yi ñuy wax si carte électeurs yi te ba léegi sénégalais jotuñu mu def ko mu def ko euh, mu def ko gré à jox ko benn entreprise bi ñuy wax Iris Corporation xoolal mbirum fichier électoral yi élection yi gën a bon ci élection yi Aliou Abdoulaye Daouda jàll moo ko organisé fii si réew mi kooku ñëpp ci rente compte ñëpp ko gis ba mu nekk ministre bi mu nekkee ministère du budget ay problème rek moo fa nekkoon ñu yor ko infrastructure projet yi mu fa defar yëpp amul benn projet bu baax xoola promoville bi projet yëpp arrêté kooku nag il faut président Macky Sall ak quelle que relation ak moom mu xam ne réew du affaire xarit te Abdoulaye Daouda Diallo du du du financier Abdoulaye Daouda Diallo juutikat la daf fi war a jóge entreprise yëpp ñu ngi commencé tëj. ñii ñi ngi am ay problème ñii ñi ngi toog deux mois trois mois quatre mois amuñu lu ñu fay seeni agent Abdoulaye Daouda jàll mi mais c'est un danger financier pour ce pays na jóge ci ministère bi te du ñu bàyyi nag di xeex tànk jegewul ci ministère des finances parce que pour intérêt askan wi la pour intérêt réew mi la parce que réew mi kese kese kese kese mooy li nga xamante ne moo ñor